fi yaakaar sénégalais bi fi toog si kii naan nañuy këyee ak dara amu fi lu ñuy fay. ziar gars yi jàkkaarloo bi passé Bouba Ndour def na cri de cœur boobu ba léegi defuma ci video ndax dafa am benn audio bu mu doon waxtaanal suma meilleur ami ñaa mais malheureusement gisuma audio yi parce que suñu discussion yi dafa bari ay mois ci ginnaaw sama xarit boobu dama ni ko woon booy financièrement mi TFM am na problème. mu ne ma noo ko xamee dafa am ko la ko wax ma ne ko non kenn waxuma ko dama xool situation yi frustration yeeg frigo yeeg yooyu mu ne ma non booy kon bu ci def vidéo da nga leen di yàqal te dara wóor la ci quoi. moo tax bi ma gisee Bouba Ndour génn wax ma ne ah may wëri audio boobu pour tegal leen que confirmer leen ni la lii doon naa ko wax sama xarit bi may gisuma audio bi Bouba Ndour nag cri de cœur bi mu def ak li mu wax am na fu ma d'accord ak moom dinaa ci ñëw am lo xamni la ni wax nako ko mais dafa def aveu de taille bu bu Ndour bo liiree li mu wax dafa avoué ni ñom daanu nu fay impôt néew lool mo am mais ci ay waxam ndax cri de cœur bi mu def ni defu ko won ci jamonoy Macky Sall manam fiski bi ñew na ni instant bi xam nañ ni dañ ko wara fay neena sax même buñ ko fayé télévision bi dafa am problème xal na si sax yeneen média yi ne ñëpp am problème pour sax fay seeni salaire bon fi ma momnak ak moom nag surtout sax fi mu naan su ma xëysee ba gis cent personnes ma ah yàlla na bu yaakaar tas gis nga état bu fekkee benn société wala benn entreprise dafa nar a dem fayit wala dafa war a suux état daka am devoir pour dimbali ko pour mu bañ yegg foofu ça sax dina subventionné bon vous des pays développés, yi fii bon vous faites une entreprise société dafa nar un daanu vous def tout pour redresser ko gis nga TFM ndeysaan dafa nekkoon rêve pour nous de fa Madame journaliste animateur, animateurs yi nga gis sax ñiy euh, série téléfilmé, en général pour ne pas citer ñi nga xam ñoy célébrité sax dañ doon def lu tout mu nekkon seen rêve pour ñu dugg TFM ba ñom sax ñi fa employé dañ ko doon glorifio da nga doon gis ñen ñi di wax di gis Lamine Samba nan man sama contrat xawma VDN bi xawma ci mbedd la ko signé Oustaz Modou Fall nan ñun fi ñu nekk ñepp fi ñu bëgg ñew nga gis sax jamono mercato bi vraiment Youssou Ndour ni mu doon débauché gaay yi xam nga ba ñi sax am na ñoo xam dañoo dugg TFM dañoo war fanu nekkoon ndax Walfadjri ñaata nit la defal ay formation mais léegi nga gis ni liggéey TFM nekkatul rêve léegi nga gis frustration yi bari na ñu ñuy frigo bari na parce que ni ñu doon recruter en masse parce que sama benn rakk boo xam ni moom ay mbirum réseaux sociaux ay mbirum àddina intéressé ko benn jour du doon waxtaan mu ne mais yoro télévision nan lay def ba fay ay employé man loolu laa xamul te léegi gis nga Bouba Ndour wax na nee na sax. pour ñu am publicité léegi problème la te ñoom ñoo ci tane la wax ay publicité ay deux cent mille ay cent cinquante mille te gis nga crise bii am ci média bi te li ko waral mooy réseaux sociaux yi télé bu gën a mag lay gën a sonal maanaam.